Ah, kon nuñ koy defee chaque année euh, euh, Korité avec les célébrités ah, tey nag ñoo ngi fii nga xam ne muy fan résidence euh, daal di seet si monsieur le premier ministre donc di Abdoul mbay ah, donc nag fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy fête bi ci ni mu ko passé lépp li nga xam ne concerne na rek li nga xam ne fête bi dinañ ci laal tuuti politique du ci ñàkk donc dama àndat ki nga xam ne mooy Papis Dem sama caméraman de tous les temps daf may daal di accompagner rek ci biir ma xool monsieur le ministre ni mu toogee. bu ma jiitalee sant yàlla julli ci yonent rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu waa Sénégal yëpp it euh, di leen baalu àq di leen baalu ak di ñaan yàlla ñu boole ñu jéggal euh, di ñaan itam weeru koor bi nga xam ne génne nañ ci yàlla nangul ñu ko nangu suñu ñaan nangu suñu jaamu yàlla di ñaan yàlla mu def jàmm ci suñu réew saxal ko fi mu yàgg euh, di rafetlu nag euh, di leen di dalal. monsieur le ministre donc ñoo ngi dalal nag tey ki nga xam ne muy Abdoul Mbaye kenn dootu ko présenté ci fii Sénégal donc c'est un plaisir énorme ñu daal di ko choisir euh, ci li nga xam ne mooy Korité avec les célébrités tey nag ñoo ngi fii. ci fan résidence comme ni ma ko waxee ca njëlbeen ba ah, donc fas yéene waxtaanoon moom ah, ginnaaw bi nga baaloo ak ba pare monsieur le ministre gis nañ ne carrément ci koor la ñu jugee et en tant que musulman yow naka nga ko dundee woon. ah xanaa or or ba mu jeex tag ba noppi nag maa ngi ko doon wax sànq sax ndax bi ma leen doon xaar jot naa fi euh, for ba tuuti nelaw. Euh, guddi bu dikkee mu am loo xam ne di da nga koy ñaan sa boroom ñaan ko mu war a jëm ci sa njaboot war a jëm ci say mbokk say xarit say àndandoo waaye war a jëm itam ci képp koo xam ne bokk nga askan ak ñoom bokk réew ak ñoom euh, génn nañ ci nag dugg nañ ci ci alhamdulilah rabil alamin génn nañ ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilah rabil alamin euh, ñu ngi doon rafetlu ànd bi ñu àndoon ci bi ñuy door koor waaye yàlla def na euh, ñu am ñaari korité waaye noonu la ko yàlla bëggee li am solo daal mooy euh, ñaan yàlla rek li nga xam ne ñëpp ànd nañu woon di ko ñaanal seeni bopp di ko ñaanal jullit yëpp di ko ñaanal Sénégal yàlla nangul ñu ko. beaucoup Amine euh, donc nekk ginnaaw bu ñu génnee ci li nga xam ne mooy le Ramadan dañuy daal di dugg ci li nga xam ne muy korité tey ñu choisir la en tant que une personnalité bi nga xam ne. Euh, euh, yow nit ñëpp dañ la daal di bëgg ràññeel aussi fii ci Sénégal donc korité bi naka nga ko dundee at euh, baalonte ak bi ndax nit ñaa ngi doom ñëw wala lu mu demee. Ah waaw loolu am na tey moom samedi la ñun dañuy faral di def ci suñu famille te yàgg ko def boobu suñu waajur bu góor Alaaji Kee Bamba yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana mi ngi dund mooy famille bi yëpp ñooy ànd bokk añ ñooy ànd dem julli ji. loolu bu amee ba noppi ñu ñëw bokk añ bi euh, tey nag bésu añ bi la woon waaye démb la woon bésu julli bi euh, ànd nañu julli ji euh, tey ñu daje fii ci ñu ñëw ñëw wéttali suñu waajur bu jigéen léegi sax la xale yi soog a a dem waaye kër gi xumboon na lool <laughs> ba noppi nag ca bés bi itam suñu ay xarit ak mbokk ñëw di ñu di ñu ziar di ñu ziar si ñu yéen sax la doon xaar de waaye bu ngeen bu ma paree ci yéen rek man tam mu am sama wàll da dem ziar yi ji suñu ay pap yoo xam ne ñu ngi dund ba tey mu am solo lool ñu dem eh, tàllal suñu loxo ñu ñaanal. macha allah loolu am na solo lool ba tax na eh, Korité eh, d'habitude dañuy daal di choisir li nga xam ne mooy ginaar est-ce que yow lan moo la gënal viande rouge bi wala <laughs> ginaar gi. ñaar yi. moo la gën. <laughs> ñaari laa lay tontu ndax euh, suñu waru bu jigéen dafa tàmm di ñu toggal euh, couscous marocain mm. moom la ñuy añee waaye couscous marocain bi daanaka couscous royal lay doon dina am yàpp xar am yàpp ginaar waaw ah, kon ñaari ñaari la ñu ah, la ah, ñu boole tey absolument <laughs> alors ñu gis ne également euh, korité bi ba mu desee quelque temps rek dafa ginaar yi dañu daal di feebar grippe aviaire dugg na si dëkk bi Euh, feeñee fa fële nga xam ne euh, muy Saint-Louis ci euh, parc bi nga xam ne moom la ñuy woowee langue de barbarie est-ce que ren sentir ngeen carrément li nga xam ne mooy manque ginaar manqué ginaar bi nga xam ne ginaar manqué na ko waxuma sax manqué ginaar waaye li ñu sentir kay mooy donde duma dem di duggi nag waaye dépense bi ñuy jox moom soxna yi dañuy daal di wax ne njëg yi yokk nañu te ci dëgg-dëgg loolu ñu ngi koy mettitlu ndax euh, am na ñoo xam ne dina jafe-jafe dina jafe lool ci ñoom ñu mën a am lu lu lu doy ci lu jëm ci bu fekkee ne da bëgg dugub ba soxla gerte et cetera et cetera kon euh, li ñuy ñaawlu daal mooy njëgu dund bi te maa ngi dégg sax ne président de la république euh, jàpp na léegi ne ca kaw ga sénégalais yi sonn nañu te waxoon nañ ko ci njëlbeen. fin décembre 2022 waxoon naa fi ne ca àll ba nit yi dinañ sonn dund bi dina jafe ndax mbéy mi faydaaluñu ko li ñu doon am ci dugub li ñu doon am ci gerte amuñu ko te ah soxla nañu ndimbal ndax buñ ko defulee de xiif dina am surtout loolu j'espère aussi euh, ñi nga xam ne ñooy yore wàllum yokk beet wàññi bi dinañu wàññi rek li nga xam ne mooy dund bi parce que ñi nga xam ne dañuy daal di dem marché sonn nañ lool et que dépense loo leen jox jox dépense euh, dina daal di am lu manqué mu nekk loo xam ne situation bu compliqué euh, bi nga xam ne ñun jigéen ñi dañ koy dund mais góor yi aussi seen poche daal di ko fekkee donc ñu ñëwaat ci korité bi parce que tout à l'heure maa ngi dégg nga naan carrément démb ngeen julli Euh, mais tay ngeen daal di añ donc naka nga gisee euh, situation euh, korité bii ren ndax ñii dañu julli démb ñii julli tay ah loolu moom yàgg na fi am yàgg na fi am ku nag rekk ak di li nga jàpp war ko topp ñun ci suñu famille li ñuy jàpp mooy bu fekkee ne am na benn jullit xam ba ay jullit yoo xam ne nee nañu gis nañu weer bi ñu daal di jàpp ne weer bi feeñ na ëllëg seenu julli dañ noonu lañ koy doxalee waaye teewul it eh, bés bi ci topp doon eh, bésu korité vraiment bésu korité li ci am solo daal ci ni ma ko gisee man mooy ndegem eh, bés bi jiitu ci shawal kenn waru ko woor ku nekk war na góorgóorlu ba bañ ko oor waaye julli saa saa yu la yu la neexee ba pare nag bu fekkee ne jàpp nga ne desal nga benn fan nga daal di di ko mëttali eh, alors alors ñu daal di dugg un ci li nga xam ne mooy politique euh, ginnaaw présidentielle yi léegi mu ñëw lan mooy solution en tant que premier ministre lan nga gis ne mooy solution pour ñu daal di am li nga xam ne euh, mooy euh, présidentielle bu apaisé wu. maa ngi dégg sànq président de la république di oote daje ak dialogue waxtaan digganteem ak opposition li ma ci rafet rafetlu mooy xam na ne tension am na fitna mun na jóg fitna sax xëy na jóg na ba noppi waaye am na wàll boo xam ne ànduma ceeg moom mooy di ne euh, dialogue moo soxlawul ndax lépp loo xam ne indi na fitna ci lu jëm ci élection ñu ngi jóge ci loo xam ne amu fi woon 2012 moom mu daal di ko teg loolu di lan benn waxu troisième mandat loolu di lan ñaar parenage loolu di lan ñett rëbb opposant yóbbu ko yoon ba dootul mën a te ñett yooyu yépp amutoon 2012 indi na ko 2018 ak li ci topp troisième mandat bi nañu des ci li nga xam ne di moom suñu la suñu constitution wax ndax nag njiitu réew boo xam ne jóg na ba waat ci kanamu askanam waat ci kanamu yàllam ne dinaa respecter loi dinaa topp yoon ñaari wax ci benn loi munu tane waxoon nga ne lii moo am sa mandat jeex na ñaar la bii mooy jëm moo mooy mujj mooy sa sa bu mujj bi da des ci loolu ñaari wax mu xajuñu ci ñaareel bi ñu jëm ci parrainage parrainage indi nga ko parrainage ku na ne suuf yu am te teewul ñuy ay élection ba ca bi nga xam ne bi moom la ci génne ba falu waaye indi na parrainage te cour de justice féete na kaw bépp tribunal bu am biir Sénégal nee na lii du yoon dindi ko kon xam na yomb na mu ne topp naa conseil euh, cour de justice de CEDEAO dindi naa loolu ma duggaloon ñetteel ba mooy lan dafa am soppeeku boo xam ne dafa ko duggal ci biir article L57 bu code électoral loolu moo indi fitna bi jëm ci justice ak tribunal ku nekk ku ku doon homme politique rek nga bañ fa dem baa moom ci boppam sax ñoo xam ne ni war nañ fa dem ndegem buggut ñu ñu perte seen droit éligibilité mu mu mu daal di jël euh, lo loxoom teg ca dossier li ko indi mooy article L57 biñ koy bind maanaam loi consensuelle ba woon de 1994 te Alaaji Kéba Mbaye jiite woon euh, kuréel bi ko doon liggéey bi ci doon liggéey ñëpp bokk ci ñëpp ànd ci ñëpp nangu ko dafa am lu mu ci soppi loolu moo indi fitna boobu te li mu ci dugal nag lu tuuti la de tout sénégalais a le droit d'être éligible daf ci yokk tout sénégalais électeur électeur boobu nag moo indi fitna bi la bu fekkee ne yéene bi nekk ci moom mooy indiwaat jàmm indiwaat dal ba ku ne nangu ne élection ñuy jëm ñu jëm ay élection transparente lay doon ñett yooyu moo yore caabi bi na tijji bunt bi ñëpp jàmm génn ñë ñë ñëpp rafetlu ko. incha allah j'espère que dégg ngeen li ngeen xam ne euh, mooy message bi euh, monsieur le ministre daal di lancé euh, donc en parlant de Alaaji Kéba mbay di sa papa nekk ki nga xam ne Sénégal ñëpp ko respecté woon kenn dootu ko présenté fii Sénégal donc yow tey ban regard nga am ci li nga xam ne mooy magistrature bi. gis nga li nga xam ne wax naa ko mu jëm ci L57 bi Macky Sall soppi bu fekkee ne dindi na électeur bi nit dina nangu ne bu ñu demee ca yoon dogal dina am te du doon dogalu politicien waaye bu fekkee ne bàyyi na ko ca L57 bi des ni mu melee ni ni mu mel na léeg-léeg ci ci ci bi bi mu ko soppee ba ba noppi képp ku opposant bu dem yoon rek dina jàpp ne ñu ngi lay bëgg a topp ndax génne la ci ci ci ci ci ci ni mën a bokk ci ci ci rawante bi kon na dindi loolu ku nekk nangu justice léegi nag mu des magistrat ba ca boppam te loolu ñu ngi ci suñu droit pénal magistrat ba ca boppam mooy seet ndax kii li mu def war nañ ko dindi droit d'électeur ndax kii li mu def war nañ ko dindi droit éligibilité maanaam mën na mën a bokk ci rawante bi loolu yomb na jàmm daal eh, dina ñooy waaye toll nañu foo xam ne magistrat bu ne tooñ nga fekk nga tooñ mën na ne bu ne tooñ nga rek sa droit yëpp dañ koy daal di dindi bu boobaa nga nga nga daal di bañ boobu décision de justice. macha allah alors ñu daal di ñëw ci li nga xam ne mooy le projet d'amnistie bi nga xam ne yow euh, naka nga ko gisee d'ailleurs. gis nga lii ma la wax buñ ko defee. amnistie doo duñ ko duñ ko soxlaati bu boobaa ñëpp bokk kon nañu dindi benn araf bu ndaw la rek électeur nañ ko génne ci L57 tey bu boobaa dinañ gis ne ñu bëri dinañ mën a bokk bu fekkee ne loolu doyut ñu soog a xalaat loi d'amnistie waaye boo nee dinaa def loi d'amnistie wala balaa booba yéen na ngeen ma ñaan loi d'amnistie xam nga yaa ngi ubbi bunt di ko tëjaat ñaara mën ne bu fekkee ne président Macky Sall des na ci mbëbëtam bii maanaam bëgg a toogaat te li ma jàpp man mooy bu fekkee ne nee na troisième mandat mën na am ba bokk ci élection Macky Sall du yem ca troisième mandat ah yàlla rek a tax may wax man li ma gis mu koy waajal senegal mooy toog fi ba abadan ndax am na feneen gis nga gamoo président Bongo dind na ci constitution li doon yemale mandat nee na léegi yemale mandat amatul mën nga am benn ñaar ñett ñeent juróom li nga bëgg a def nii waajuram loolu nag bu amee Sénégal dinañ ko jooy ndax dañu euh, seet rekk li nga xam ne lii dund nañ ko 2012 ba tey am na départ boo xam ne ci dëgg-dëgg nañ ko ko nangul tegu woon na ci yoon ci ban yoon ci yoonu yokkate maanaam li nga xam ne li mi ngi ci doon oote booba candidat la waaye teggi nañu boobu yoon tey li ñu mën a jàpp ci li nga xam ne dund nañ ko ba ca 2023 2024 mooy ñu ngi ko doon wax ñu ngi ko doon wax sànq njëg bu yokk dund bu jafe faju bu jafe jàng bu jafe emploi amut waaw lu des bu fekkee ne nag loolu am na dangay daldi nangu ne mënatuloo dem joxal keneen mu jéem te alternance dafa ànd ak démocratie ndax ci foofu la amee solo gëmoon nañ la dénk nañ la ah góor góorlu nga xëy na ak ak waaw bàyyil keneen ñëw mu jéem moom itam ñu seet mu des nag ci sénégalais ñu taamu ki ñu yaakaar ne moo gën ci Sénégal waaye du rekk ci daf ma neex dafa rafet dafa yànji kan moo gën ci Sénégal war ñu génn mën a génne ci jafe-jafe yu ma ne ci kaw wan ñu démb ne am na euh, bo yooyu capacité ak mën-mën xam ne merci beaucoup am na solo comme ni ngeen déggee rek li ngeen xam ne mooy waxtaan bi donc tey nag ñoo ngi dalaloon ci entretien bi ki nga xam ne mooy monsieur le ministre Abdou Mbaye donc mu nekk plaisir ak contentement le fait que ñu ñëw fii tey ñuy waxtaan waxtaan bu ama am solo at moom donc dañ koy daal di bàyyi rek mu tàggatoo at ñi nga xam ne ñoo koy seetaan merci beaucoup monsieur le ministre euh, ah xalam ne merci ratam ndax dam lay gërëm nag ndax euh, bésu korité la jot amul waaye fexe ngeen ba ñëw fekk si ma fii ci suñu kër gu mag li may ñaan yàlla mooy xëy na lii itam ñu mën ko at bii ñu dellu allah amiin macha allah donc euh, kooku nag moo nekkoon euh, monsieur mbay di Abdoul mbay euh, premier ministre donc di ko jaajëfal bu baax a baax c'est un énorme plaisir mu daal di ñu dalal fii nga xam ne mooy seen kër gu mag ñu daal di def li nga xam ne mooy entretien bu am am solo dégg ngeen rek message yi nga xam ne jot na ko lancé mais waxtaan bi tamit am na solo bu baax a baax xanaa di ko remercier bu baax a baax mais aussi di remercier à tout sa famille bi nga xam ne fekk nañ ko Ah, donc euh, di leen euh, joxaat léegi léegi rendez-vous ci beneen kër kilifa ah, bu ko defee euh, ñu daal di fa dajewaat daal di waxtaanaat.